nga xamante ne yéen ñuy bàyyi xel ñi ngi fi nga xamante ni Pape fi noo tudd. Grand Mbao d' accord ñi ngi fi nga xamante ne alors moom moo di euh, Grand Mbao ba tey ci biir Kër mbay Fall gis ngeen li nga xamante ne moo fi xew mu wuyoo ci turu Pape Keita euh, ñi nga xamante ne ñooy policiers yi daal di koy faat ñi ngi fi nga xamante ni mooy famem ki ñuy euh, waxtaanal nag mu di maamam fas yéene andi ay leeral yu amam solo papa ñu ngi lay ziar ñu bàyyi la ak. maa bi naka la. man Sada Keita la tuddu Sada Keita ñu ngi lay masawu bu baax a baax ci li nga xamantene jot na fi xew mu di mm. Pape Keita seut genn aduna a papa yeen circonstance wala ban anam nga ko yegge mo mo ko yegge dal sama dom bi kika ko jur. Mm-hmm. muy tanor moo ma woo. Mm-hmm. ci guddi ne papa ma ko way mu ne ma pap ray nañ ko. Mm-hmm. ma ko pap dama xex wala mu ne ma non gendarme ñoko ray ñoko tiré bal mu dé bal bi dafa percer poitrine bi genn man ko loolu nu mu mën demee ñu ne ci manifestation yi la. man ko léegi man maa ngi ñëw mais dans la nuit comme y avait les problèmes j'ai fait les moyens pour am oto mënu ma am oto. ku ma jël tamit amoon naa benn taxi mais malheureusement après mun a du mën dem parce que gars yi nañu taal otoom. donc ci laa bàyyee noonu ma woo ko ne ko léegi damay bàyyi ba fajar. su fajaree man dinaa ñëw foofu. bon six heures du matin lama ma rappelé moom pour xamal ma ne gars yi dañ ko jox rendez-vous dalal jàmm pour jox ko corps bi. ñu xëyee dem foofu. il s'est bi ñu gisee waa ji mën nañu affaire duñ ko mën a jot tey mhm. il faut ñu xaar demain parce que dañu war a def autopsie ak loolu daal la ma expliqué. Mhm. bon ma ne ko amul problème donc ñun on va revenir demain mu ne demain bu ngeen ñëwee sept heures huit heures même sept heures ba huit heures di ngeen fekk mu pare quoi. d'accord ngeen yóbbu ko mën ko denc. Mhm. noonu la demee exactement. léegi nag la chose que s'est produite mooy ba ma ñëwee ñoom xale yi dañ ma présenté benn bal.

bal ñu ngi ko dóor ci si ci xol bi lañ ko dóor ci dënn bi donc moom à l'instant la dee moom il n'a même pas mhm. kii ci instant bi la dee mhm. parce que xol ci dënn bi la jaar donc on attend l'autopsie pour voir mieux mais noonu lañ ko reyee mhm. bon léegi nag li am mooy j'ai entendu qu'on a fait une déclaration buy wane dañ ko rey ak arme blanche boo gisee moo wane bal bi sax loolu moo tax parce que nit ki du nekk si problème nekk si naqar nga koy tegal loo xamante ne du dëgg yaa may dégg. nit ki soo ko jaalalul masa woo ko waroo ci teg ay wax yoo xamante ne amul. Sénégal ni muy doxee nii warul doxee nii. honnêtement il faut dire la vérité. nous on n'est pas des politiques pour nekk fi di expliquer ay détails. sérieusement dañuy wax dëgg li nga xamante ne moo ñu metti parce que xale il était plein d'avenir. surtout yaa may dégg baax la ma toppatoo jàngam ak dem fubale loolu la doon def. amul leneen. fu ko papam yemloo fa la koy yemloo. peut-être nag lu yàlla dogal il était là-bas au mauvais moment je mhm. dem sax di doxi donc situation bi non la demee. c'est regrettable nag ñu ngi interpellé nag ñu ngi je ne sais même pas qui parce que mënoo koo xam. parce que Sénégal ken xamul nu muy doxee xamoo sax kan ngay waxal. fi fii y' a pas quelqu'un qui est venu le voir du maire du représentant du dara. personne n'est venu ici amul kenn ku ñëw fi wax ak ñun. te itam fa lañ ko bàyyi sur place. c'est malheureux ça aurait été une autre personne boo. Ah, quatre heures de temps waaw léegi nag li man une personne bo xamanteni je ne veux pas dire de classe je ne sais pas nan laa ko mën expliquer kon ni ñang fi regrouper di ñëw guddeeg bëccëg mhm. donc affaire bi metti na bien vrai qu'on se remet à Dieu parce que mhm. Yalla rek moy rey mais li ñu def di ñaanu trop trop trop trop trop mhm. trop trop parce que li lu ko gëna metti ci aduna amul ndax plainte fasciné ci am non plainte bien sûr on va suivre loolu c'est évident

xale bi saa yi su ma ñëwee su ma ko fekkee si atelier bi dama koy mbalak sax mais du ma xool bi ma ko mujjee gis maa ko yóbbu mu yóbbul papa ji papa da ko yóbbul ma yëmbal mhm. si maamam mhm. man maa ko maa taal sama moto mhm. yóbbu ko ba Fass Mbao yaa may dégg mu wàcc bi may wax ak moom xooluma sax ndax yar barki alxuraan 15 ans la am de 16 ans 15 ans 16 ans jàngi fubal loolu rek xam xamul leneen ñu rey ko te man li ma gën a metti mooy yow mbaaw yow nga nekk yow nga nekk yow nga ne yow yaay yaay yaay meeru mbaaw mhm. kirim am fi depuis démb su guddi ba léegi mhm. ñëwoo sax kër waajuru ki gaañu ki ki ki ñu jam mhm. masawu ko te maire bi mi ngi fi xaw ma ndax mi ngi fi xaw ma neew même bu fi nekkul am na ñu ko fi nekkal amul benn autorité bu fi ñëw yaa booy loolu dafa ñaaw bàyyi nit ku nekk da nga koy xoolee sa bopp bu doon bu doon bu sa doom lañ ko def ak doom ni mu jegee ni mu jegee waajuram ñu def noonu sa doom nga ñëw fekk sa doom tëdd ñu rey ko dafa ñaaw dafa am yoo xamante dafa rafetul Sénégal man dama xamatul ban Sénégal lañ nekk. Mhm. barki alxuraan. léegi ñuy bàyyi xel donc famille ki nga xamante ne ñoo di Pape Keita dégg ngeen ñi nga xamante ne ñooy xaritu papam papa ji nag dafa nekk ci benn état boo xamante ne mënaguñ ko jël waaye ci ay kàddu sëñ bi bi naka la ñu ngi doon la Ibra Fall laa tudd. Ibra moom sama doom la. doom la man maa woon ngeen ne 2007. il est né à 2007. Mhm. xale bu ndaw la. Mhm. ba mu juddoo ba léegi ab du ma toog semaine bu ma ko gisul. kon nag Pape. Mhm. du ma wax si Pape quoi sama xol dafa tooy quoi man damay wax ci état Sénégal. Mhm. wax ci Sénégal. Mhm. Sénégal li muy déroulé nii li ma gis nii. li ma gis nii amul tànk ginnaaw tànk kanam la am. te li may wax ni Macky Sall laa koy wax directement. bu yóbboo moom bu dégg li ma koy wax. wala maa xamante ni réew dafa am nu koy yoree. waaye yor na doom kii tey lu ko dal nii bu fekkoon tey doomam la dal réew mi tey ñëpp di doon ko yëg ñu ngi petit mbaaw grand mbaaw xale bi démb. billaahi amul benn autorité boo xamante ni dañ ne si administration la bokk bu ñëw fii jaale wala mu ñëw fii reconnaître ndax fii am na crime wala amul crime depuis ce matin maa ngi fi gisuma fi benn autorité boo xamante ni na personne kenn ñëw fi kon nag léegi ñun si ban Sénégal lañ nekk ñun fan lañ jëm pourtant ay papaam ñoo ngi ñu toog ay cent cent cent de personnes ñoo ngi fiy toog tey bu ñu jugoon pour dara wala ñu def dara kenn mënuñoo téye ay cent cent ñu ñëpp ay papaam lañ xool ñuy toog fi ñëpp ay nit nit ñoo fi toog ay mille de person mhm. kon ñun bu ñu jugoon pour def dara kan moo ñuy mën a téye. Macky Sall na delloo si xelam. Mhm. li paa li père wax nag Sonko daful dara ci ay dëgg-dëggam la nekk mhm. ci ay réalité la nekk te dafa bëgg dara comme moom ni mu ko bëggee woon comme que moom tamit situation bi agsi mhm. te lii mhm. buñ ko arrêté am na feneen fu mu jëm foo xamante ni mooy mooy mooy gën a mooy gën a mooy gën a graaw bi nga yëgee mbir mi démb en tant que tey jii mën nañ ne papa ci pap ndax sa xol dafa tooy ku dégg ni ngay waxee mm. xam ni sa xol dafa tooy bi nga ko yëgee démb naka nga ko dundee nelawuma ba bët set nelawuma ba bët set parce que la pap xamul dara la xam football suñ lépp dañ koo jël jox ko Pape Pape fu rek la xam wana te xoolal mu ngi nii papa ma ngi nii dama naan ko kii du sa doom kii sa xarit la xale bu ndaw boo xamante ni lépp papaam moom la mooy dox mission papaam yi lépp moo koy def lu papaam wax loolu lool wax lu papaam wax waxul loolu kon nag kon yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla xara àjjana baab sama xol dafa tooy mënu ma wax si moom daal billaay wallaay taal mais Sénégal Sénégal ni muy doxee ni